réewam te naw Cees bari am na yéene Cees yiw ñeme coono fayda ngor la tàmbale fonk na xam-xam wuti jariñ Cees Cheikh Agibou Soumaré daa war a door Cees ñoo ko mën dooleel mu tàmbali seen doom ju na ak a am fulla tayaw mais ba tëba yéeneem ci xam ak la ko teg ajibu sumaare tàllal na cees loxo suquli gox bi day tee orkaam ak orekaam orkaam waaye bu ngeen tëddee nelawal partenaire bi mate na ko cheikh ajibu sumaare soxna Faat Jóob yaayam ja wàcc na soxna Faat Jóob yaay Faat Jóob yaay booy ne wàcc am nga waaju am jàmbaar aji boo kaw la nga njëkk liggéey leer na inspecteur nga liggéey ba nga jógee ENAM ENAM la jógee dem Kaolack ndangaan Cheikh Adjibo liggéey kat balaay wéy waaw waaw waaw sa deexo naam Traoré man de kontaan naa Cheikh Basiro naam Fall hey ànd bi yàgg na démb la leer na hey Cheikh Adjibo mën a mbootaay Cheikh Ajibo mën na boot waaw waaw Cheikh Ajibo yoroo béjjëni gannaaw waaye Sadex Traoré yoroo béjjëni dënd leer na hey cosaanu làmmiñ tàmbaliwuma ko xalaatuma wax jeexal ko làmmiñ mooy mbootu réew xam leen ko bootal roggante saw xeet gis ko àdduna njort naa dafa defar fegul nekkal làmmiñu askan def lépp làmmiñu cosaan ndax àdduna nit nit rek lay doon àdduna nit nit rek doon aji boo rëy rëy lu woo ëppoo xatoo góoru ndeel a jaay aji bu naam sunaare góoru ndeel a jaay nday rama si di ma de kontaan naa aji boo ko bëgg réewam te naw cees bari jox yàgg liggéey am na yéene Cees Cheikh Aji boo ko bëgg réew naw Cees bari jom yàgg liggéey am na yéene Cees yiw ñeme coono fayda ngor la tàmbale fonk na xam wuti ko jariñ Cees ay jariñ Cees a gën a jariñoo Cees ay jariñ Cees a gën a jariñoo Cees bay wadaas Ousmane Naam Diop yéen jariñ Cees ndaw ñi di leen bëggee kontaan naa kon dañu